ñànki ku leen may nopp nag yow la ngeen taxaw yéen ñëpp incha allah lépp lu ci des di ngeen kontaan bu soobee yàlla Diomaye Diomaye fay président ne va jamais décevoir lépp luy qualité jullit bu set lépp luy ku gëm diine bu set mi ngi ci moom daray àdduna safu ko daray àdduna safu ko lu ko yàlla may benn président mësu ko ko may ay président franc-maçon lañ am ay président workat bandi salte xam nga complexé moom faalewul dara ku gëm yàlla ku yàlla jiitu sa xol keneen saf la te moom loolu la am yàlla moo jiitu ci xolam fees dell ci xolam dara jàppewul àdduna dara kon kooku du sàcc te réew mi Sénégal buñ dul sàcc rek dëkk bi avancé te yor nañ président boo xam ne <laughs> dara yitteelu ko ci àdduna daa yore sax banque bor banque sax da kaa yoreel bor te def na 17 ans impôt domaine nekk humble ku humble macha allah. donc voilà di wax ni gars yi rek yenn sénégalais bu leen des ci manipulation dégg nga surtout manipulation nag sénégalais benn feebar bu gën a mag moom laay demee bu ko sonal manipulation la ak neex a manipule du ñëpp nag ah ma ne sénégalais je parle de euh, ñenn ñi quoi ñenn ñi dañoo bëgg manipulation te manipulation dafa yàgg te tamit ñun tamit léegi faayit nañ ba yor pouvoir bi mënuñu fee nekk tamit di tontan di tontu ak a tontante moo laa nag day xam ne léegi moo laa léegi xeex na ba yàlla may ko mu jël pouvoir bi te xeexul pour jël pouvoir bi pour continuer di xeex dafay jël pouvoir bi dafa xeex jël pouvoir bi léegi nag dafay won gars yi lan mooy liggéey day won gars yi lan mooy liggéey mais mënuma xeex jël pouvoir bi nekkat di xeex rek xeex ak APR xeex xeex xeex trois ans ba jëlee leen fi jël pouvoir war a liggéey nekkat di xeex ñu eh, moo laa wax la califourchon ay califourchon ay califourchon ay lan mooy liggéey damay woon califourchon lan mooy liggéey day gis moolaa boobu doon wax ak califourchon moolaa romb na califourchon day gis moolaa califourchon da koy gis muy liggéey di œuvre di won affaire yi ñàkkut a kap nekk ci job bi nekk ci kii mu di jiite affaire yi Kaliphone soo xam ni Mawlang mi ngi mi may ñuus te loxoom laalu ma di liggéey di liggéey ba ki nga xam ne mooy mati trois pommes nëpp ne Mawlang mi mi ngi may ñuus te loxoom laalu ma ñun loolu lañu wax mais jeex na toogaat fii di tontante déedéet mënuma xeex ba jël pouvoir téye war a won gars yi des exemples de travail de devoir citoyen yi may xaar nekk fii di benn bennal moo laa moom toogatu fi di leen waxal ay mati trois pommes yu nëbëg ay mataar la la la la silibaar la cagabaar buy aar bépp njagamaar amatuma jotu ñooñu romb naa mataar la silibaar la cagabaar buy aar bépp njagamaar loolu romb naa ko nawloowuma ko maa ci yeneen niveau léegi dama koy won nan la ñuy liggéeyee moom ñoom xaw nañ fi musul ñëw dëkkam comme gëmu ko man ñun xew nañ man damay dem sama dëkk kon kooku musul gën dëkkam buñ fi nekkee ñoom mu ànd ak ñoom ñi mawul ñëw te pourtant ñoom ñoo nekk ci pouvoir man nag dañoo jël pouvoir bi damay dem kon man du ma moroomu du ma tontu rek mataar la silibaar la cagabaar bi aar bépp njagamaar talu ma ko aw ma ca maa ngi ci yeneen niveau niveau de preuve de liggéey da jëmmal li ma doon wax quand l'occasion se présente il faut s'en profiter yàlla may nañu xeex nañ ba ñu am dañuy dem liggéey du leen woo ci liggéey buñ buggee ñun ñëw ñu liggéey mais ñun moom tooguñu fi di di di di fenaka ratatateeka kàccaka sosalaate non non na politique bi jeex na liggéey ñooñu ñëpp man awma seen jot képp ku bëgg a toog am jotu di tontonte yooyu wuti leen keneen mais man moom moolaa moom gis ngeen du ma nee tek salaw maa ngi fu nekk ci projet yi chaque guddi damay wax a gars yi tak tak tak tak ñu bind tak tak tak li laa xalaat tak tak tak joxe sama donc man maa ngi ci liggéey comme commencé naa conceptualiser liggéey bi nekkatuma ci ay mataar la silibaar la cakabaar wala ay taxawaalukat buy wëndaalu fële di wax ay ay mati mati trois pommes nëpp ay califourchon ay xaw ma lan ichen ci ci ci kisin ci ci xaw ma benn jigéen boobu turam bi laax bu kisin ci ci ci ci xaw ma lan ay mala moo laa waxal ci ñooñu ku ku ñoo ma boloke la pare naa dem leen wuti keneen ku leen di waxal léegi liggéey la tuuti wax joob lu bari tuuti wax joob lu bari liggéey la woote liggéey liggéey leen amatuma jot boobu mënumaa xeex rayante bay bëgg a dee ba tollu fii war a won Sénégalais lan mooy liggéey ban expérience laa am ci liggéey ci liggéey jubal yóbbu Sénégalais ci li ma doon wax ni ñu war a développé ñu ngi ci projet yi nekkatuñ ci caaxaan nekkatuñ ci wax ju bari man pare naa ci làmb avant combat bi ku nekk da ngay da ngay menacé mu ma la jàppee dama lay lekk dama lay warax yow xolal yow nangam nangam jour làmb fëng fëng fëng nga dóor mu daanu nga war a jibile ñibbi concentré wu ci ci affaire yi développement nga nekkaat fanaan naan nga toog ci stade bi dóor waa ji pare di werante ak moom xanaa sa dóor wóoru la yaa ko yenu ba mu ci kaw fëj mu daanu nga toog ci kawam di werante ak moom yow nit nga dama ne ñun ñi jóg leen ñu liggéeyi jóg ñu liggéeyi jóg leen ñu liggéeyi da bàyyi wax ji pare nañ romb nañ ñoom Matar la Silibaar romb nañ ñoom ñoom càkkakul Fourchon ñoom romb nañ jóg leen ñu liggéey da ngeen bàyyi perte seen temps léegi ci wax ji liggéey la ñu woote ku ca xaj liggéey la woote kaa la ñu liggéey kaa la ñu liggéey jàmbaar jàmbaar bul xaar jógal dóori waar jàmbaar bul xaar jógal dóori waar loolu lañ leen woo c'est fini ces gens-là ñu ngi derrière oto bu jiitu du cornet oto yi nekk ci ginnaaw ñooy cornet ñun ñu ngi ci kanam soxlawuñu cornet nit anawaa ñun jàmbaar bul xaar jogal doori waar anawaa jàmbaar bul xaar jogal doori waar kanam point ay heure lañ takk heure xam ngeen heure ñu ngi def ci fas yi gis ñu dara focus du liggéey liggéey jóg leen waar jóg leen waar waar jot na jóg leen waar liggéey focus jóg leen waar waar jot na jóg leen waar waar jot na jóg leen waar nii rek lii lañ gis gis ñu dara heure dégguñu dara jóg leen waar waar jot na jóg leen waar mun kenn mënuñu waxati leneen leneen concentré wu leen ci loolu te ngeen lank manipulation yi lànk leen manipulation yi toog muy dox bi jaaxaan di saw sa kaw muy dox di kàcc muy dox nekk griot benn politicien di ko waxal di ko taggal ay baaxu maamam jeex na c'est fini c'est fini c'est fini liggéey liggéey dañu liggéey voilà kon asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu tous pour le combat tous pour le combat jàmbaar bul xaar jógal dóori waar focus job job job jot na job liggéey job jot na job job job jot na liggéey job jot na job job job job job job job job job job job job job jot na job job job job toog muy toog toog muy dox jeex na fi tàkk toog muy dox jeex na fi tàkk toog muy dox jeex na fi tàkk job jóg jóg jóg jóg jóg jóg jóg muy dox jeex na fi tàkk jóg jóg jóg jóg jóg jóg jàmbaar bul xaar jógal dóor waar jàmbaar wóot bul xaar jógal dóor waar point peace and love and I'm out